Sine Saloum tey dafa am lu fi xew loo xam ni defe naa Sénégal gépp yëg nañu ko te li fi xew nag dafa xew ci secteur bi ma jiite muy transport muy accident bi nga xamante ni bii moo am. lii xew tey nag Kaffrine euh, ñëpp la metti waaye nag nu boole si alhamdulilahi rabbil alamin sant yàlla ndax yàlla lépp lu mu def dafa gën kon moo tax ñu ni ñu ngi sant yàlla. lol nak boko waxe ku xamul lutax nga wax ko da ngay jaaxal parce que yalla bo xamul yalla ak dogalam su defee dalaa dalay dalay naqari te yalla lu mu def a neex mais li xew nak biñu fa démé ah di jall seen i mbokk di jall sénégalais yépp di jall it président de la république mi nga xamni mom mo fa ñëwoon tay waye wax na ni dégg na fa ay cadeau yu bari yo xamanteni bi ci ay kilifa la fa la fa jup ñafa waye man Alassane ma cadeau sefer si dañoo réew ndax li xew ni tey yàlla tuddoon na ko avant ni judd waaye day am sabab dafa am si ku mu koy jaarale muy sefer bi kon moom la ñëpp di gis d'accord naa nag ni chauffeur yëpp ñu jub waaye du ñëpp bokk dëng du ñëpp manu la dawal waaye xëj na du ñëpp mën dawal loolu nag secteur boo dem am na fa waaye nag chauffeur yi dañoo réew loolu laay bañ a dégg ma wax ni mbir bu amee dañu ko war seet bu baax wax nañ ni oto benn oto bi pënam dafa toj loolu ku ko fekkewul wala ku nekk si biir accident bi xam ni pneu bu toj la mënoo koo xam boo fekkee ñu séparé oto yi waaye nag ma wax ni bu chauffeur yi defee dëgg la ñu ngi def waaye nañu wax état moom itam li muy def bu ku nekk bàyyee li nga def loo xam ni luy indi accident la rek accident yi jeex waaye ku comme lan xam nga tali bu ñu nee 7 mètres la wala 8 benn 7 mètres 8 mètres ñaari oto du si daje yoo xam ne kenn ku nekk presque am nga 3 mètres lan mooy des 2 mètres oto bi yëpp santoon di daw Mali ak feneen fu mu mën a doon tali oto booy daw di nga bàyyi 1 presque sa sa côté droite kii nga dajal bàyyi 1 mètre côté droite am lay des si tali bi ay centimètres moo fi des rétroviseur boo gis génn na oto bi. rétroviseur bi jël quatre-vingts kon lan moo def si tali bi ñoom ñaar bu ñuy dajee dañuy laalante kooku bu pneu tojee rek nga laal sa morom moo tax ñu ni nañu def deux voies tey bu doon deux voies pneu mu toj pneu mu toj naa bañ a laaleeg moromam tali yu gudd yu baax na li ñuy def itam baax na waaye mën naa gën a baax te tali nañu cent kilomètres deux cent kilomètres te mu mel nii mu mel itam li fi am du fi ñàkk am yàlla na sore nañu tabax vingt kilomètres waaye na am na baax doon deux voies na loolu daal la ñuy ñaan état bi te bàyyi kilomètres yu bari yi te tali xat